Ndiaye secrétaire général du mouvement Debout de Bambilor en même temps aussi je suis la gestionnaire de l'école de pâtisserie Maria Ndoye créée par le groupe par le GIE mouvement euh, femme active de Bambilor L'école euh, bi Yagul inauguré le 20 passé depuis lors, nous ngi Gère la comptabilité bi rentré euh, rentrée au sortie des fonds de l'école te suis naa école bi initiative parce que les filles qui ay à yu fi nekkoon ñi jàngatuñu ñi amuñu possibilité dem école l'école. ñoy les principales les principales élèves de l'école yakarna une eu e, Femme Active Bambilor il innovation lañuy wax rek au niveau de Bambilor parce que c'est pour la première fois ay femmes ont ñëw xol gis né nañ tek école lool di initiative bu rafet nous nak ñing c'est koy nous suñu présidente Anta Darongom mi nga xamné mom liko ñor que Bambilor femmes kanam que avance que les femmes sortent euh, de la pauvreté lool yépp nak pour lutter contre l'autonomisation de la femme et je pense que si la femme est autonome euh, la famille en bénéficie donc euh, di gërëm équipe bi parce que l'école est équipe la boo xoolee bureau bi Anta nekk na ci présidente d'honneur il y Ami Diagne présidente de l'école il y a Delphine Diop la trésorière euh, koy moi, c'est sama adjointe euh, Marème Sow moi, commissaire au compte euh, Ngom moi, adjointe voilà l'équipe j'ai présenté l'équipe de l'école euh, c'est cette équipe qui gère l'école kon nak li wax moy Anta dañ koy ñaanal rek bëgg ci Bambilor xam école xam école institution reconnaître sur le plan international merci bu ma gis parce que administration lañ formation entrepreneuriat administration quoi. wax nañu administration naka lay demee naka lay doxee naka lay tëddee te xëy na loolu xamuñu ko woon te xëy na loolu bu ko appliqué au niveau de l' mën nañ ci mën nañoo jox réussite en plus yeneen femmes yi bénéficié wu ci euh, ci formation bi nekk te bokk ci GIE bi mën na leen jëriñ parce que ñi ngi doon liggéey rek di dem ak a ñëw mais xamuñu entreprise mooy lan bien vrai que ñoom ñëpp ku ci ne entreprise nga yore mais xamuñu woon entreprise mooy lan kon yaakaar naa ne nag la formation a été très bénéfique te on est très

parce qu'avant avant la ñu remercier Ta Anta qui a initié projet B, indi ko en Bambilor parce qu'avant avant tout euh, mon formatrice là, déjà actrice de développement là aussi tu vois daf aimé là aussi ñu fait que fait aussi monsieur Niass que euh, monsieur Taw qui euh, prof boo xam dafa disponible question yëpp yu ñu une xaar ak une ñu doon xaarul yëpp répondre na suñu attente donc nous remercions koy remercier

defe naa ne ñun ñëpp ñu ñu fi teew ñépp donc am na lu ñu apporté donc ñu ngi leen si bu baax. asalaamaaleykum maa ngi ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tour ak sa sant je m'appelle Mariam Leye waaw nag. waaw <laughs> ah, formation bi moom macha allah waa baax na lool ndax xamal nañu lu ñu xamul woon leeral nañu tamit lu ñu leerul woon waaw. guidé nañu tamit pour que beneen yoon suñu woowee ci yenn milieu comme genre liñ ñu transformé nii dinañ mën a xam dinañ mën a renseigner wu tamit bu baax waaw. formation cinq jours la duré. waaw. maa lay fay. man maa ngi tudd Ndeye Soukay Faye. Ndeye Soukay. ah avant tout dañuy sant Ta Anta Daaru moom mi nga xamante ne moo initié lii di sant aussi Delphine ndax man apatu moom moo tax man ma bokk ci formation bi. à part aussi ñi ngi sant suñu formateur monsieur Niass. parce que li ñi doon jang jangon nañ ko mais rafraîchir nañu mémoire bi yok na ci yenen lo xamantene essai am nañ fitu dem ci entreprise di len créer sen bilan sen yeb grâce à euh di len gërëm di sante euh premièrement ñu ngi gërëm maman Anta parce que li yeb bu euh si loxom la jaar ñu ngi koy nuyu bu baax di sargal di nuyu aussi suñu formateur monsieur Niass di ko remercier si énergie bi mu fournir macha parce que nit ki jox la xam-xam rek lu bëri la te partagé na avec ñun tayalul benn yoon macha allah question boo ko posé dina la si répondre maa ngi gërëm Euh, tey bu ñu la wax ne la waaw parce que formation bi permettre na moo ma xam euh, lan mooy entrepreneuriat ma gën a xam daal defoon naa ko mais gën naa am ay éléments clés yoo xam ne dina ma permettre à ce que. ma lan mo nek ci marché bi suma ñé di présenter sama produit aussi dinaa xam nan la koy placer à ce que ma gañe marché bi. formation bi nga gis li ko waral ya nga dafa dogal ne dañ fay fekk GIE bo nga xamante ne damay nan dañu am valeur. parce que am nañu loo xamante ne fasiné nañ ko yok ci marché bi nga am de mom mo xew day effort développement. waye nak dañoo jëm si benn bërepp boobu ne dafa doy waar ndax dañuy jëm si marché si entrepreneuriat te entrepreneuriat damay fota di wax naan moog géej ñooyam di nga fa ak jën di nga fa ak yoxos di nga fa ak bagen léegi na mu baax na ñu war na jox ay jumtukaay yoo nga xamante ne bu ñu demee seen naataangoo yi ñuy dajeeg foofu dañu mën a jëflanteeg ñoom ba am si ndam am si xeetu xam-xam boo xam ne fépp fu bëgg a dugal seen produit dinañ ko dugal te incha allah rabi dinañ si am mboolem bénéfice yoo xam te ne war nañ ko see am si gàttal si tënk loolu mooy nga xamante ne moom moo sabab gi di formation bii di en bii di en entrepreneuriat. waaw beneen euh, euh, euh, waaw alhamdulilah sant yàlla fekk nañ fi ay doomu aadama.

waye bo daggee loolu diggante 9 h ba waxtu bi fekk la fi c'est que nek na formation dañ ko accueillir ak yitté effectivement def nañ ci seen kéemtalaay carton def nañ ci bép énergie buñ am. man nak nima ma sen taxaway parce que dama seet né groupe bi ma gis ay génération yu wuté gañ waye ñii ma gis nii ak ni cours bi démé man gëm na né formation bi dina am ben impact bu fort si nga xam ne moom moo di domaine entrepreneuriat. jàng nañ fi yoo nga xamante man ni ma gisee seen comportement ni ñuy xëccee notion yi xam naa ne yàkkamtuñu ko dugg sur le terrain ba fas yéene pratiquer si seen li nga xamante moom lañ jàng côté boobu moom man moom en tant que formateur sama xel dal na sama élèves yi euh, waaw formation bi bu jeexee li ma leen di dénk mooy xam nga dafa am ñaari mbir xam nga root jafe na waaye boo rootee ba pare li gën a jafe mooy denc ñoom nag dañoo root si ut nañ xam-xam am na nag lu ñu dencoon ndax ba may ñëw am na xam-xam bu ma fekk li ma leen dénk mooy denc tey kon ne di root ndax xam-xam yii ñu leen jox ay xam-xam nga woon yow ay at si amul woon kenn daaw ko jàngale jamono ji ñëw nañ gis ay notion entrepreneuriat yu bees tàkk par rapport yu ñu xamul woon jamono ngi ñëw dina am yenn évolution yi am marché dina soppeeku xam-xam dina soppeeku moo tax man bu amee lu ma leen di dénk lenn la mooy doore bi ñu am énergie bii ñu am ba def formation bi nga la saay su nañ koy conserver seen bopp bay mën yi yeneen jamono ñuy mën a def yeneen formation parce que nag xaw ma ñoom ndax am doyo nañ mais sincèrement amna mom doyo guma si ñom mu ne ma sonal ay formation ak i formation jërëjëf jërëjëf c'était monsieur Niass jërëjëf macha allah ginnaaw bu ñu sante yàlla jullu ci yonentam bu tedd bi de gërëm suñu ñaari wajur di contane bu baaxa baax ndax li naan euh, tank nit heure yek yekete sa tank di avancer te fang koy tek à tout moment ngay gis ne que fii fu baax la da ngay gën a santaat yàlla ndax bi defe naa ne yow pour la première fois nga bu suñoo interviewé suñuy activité bu ndee compté ci formation yi nga xamante ne def nañ ko fii bii bu dul dixième dina ma jaaxal te lépp nag ci li ko waral mooy ci social ak ci développement ñu ubbi école bii nag école bi école de formation bi di école Mariama Ndoye macha allah bi ñu fi toxu seeg léegi euh, ça fait même pas un mois yàlla sunu borom xéewale waat nu formation bi nga xamante ne si mooy entrepreneuriat maanaam di wax ni nit ki nan ngay def ba bis boo ubbee sa entreprise nga xam nan nga koy gérer nan nga koy téye nan ngay doxale nan ngay investir vraiment loolu dañ ci euh, kontaan di ci gërëm waa GIZ ndax ñoom seen liggéey vraiment ci Sénégal am na solo ñoo ngi taxaw jeunes taxaw jigen ni di taxaw ñep machallah allah ndax ki nga xamantene ci day ñew jangal la xam-xam jox la nga lek bo paré mu yëkëti astut la bo démé ka jëndé ka saabu kon koku bëgg na nga jang ak xel mu dal franchement di kontaan ci élève yi nga xamantene ci ñoo di jang ñu ay xalé yu dynamique man dama wax ni léegi jeunesse bi man dama kontaan ci xalé yi ndax xalé ko ci gis rek mi ngi bëgg alalu bopam ko ci gis mi ngi bëgg liggéey ko ci gis mi ngi bëgg jang xale boo si gis tey ji jàng na ba am master am jàng na ba am euh, bagam tey ba léegi ñoo ngi jël seen diplôme yooyu di si tëdd mais pourquoi pas nag nii ñu def nii moo waral ne njàng fépp la fu nekk rek mën na la jariñ macha allah ba tax ñu ñëw def cours bi nga xamante ne si mooy entrepreneuriat di xam nan la ñuy ëllëg si biir bis bu leen yàlla xéewalee nan la ñuy def ba gérer seen seen seen entreprise vraiment loolu ma di leen ci félicité bu baax a ba encore fois. di kontaan nak di gërëm ñi nga xamante ci si ñom allah bokk liggéey bi di sama groupe bi di mouvement bambilo debu boo nee benn doon ne ñaar doon ne ñett doon ne ñeent macha allah ñu baree bari lool ñu doon ay jigen ño kenn ku ci nekk da nga gëm sa bop ndax tay ji bu no gaawoon a découragé kon duñu dem ba taxawal école ndax bobu yoon wi metti na lool bari nay xaxam bari na ay ndek mais dañuy xuss rek di jall di xuss di jall di xuss di jall ba tay ji machallah ñu taxawal école bi. école bo xamantene ne dañ ko dañ ko officialiser mo am ay këyit tay bo fi jangé ba pare dañ lay jox diplôme professionnel kon du n'importe quoi vraiment loolu tamit encore di ci féliciter suñu groupe bi bo fi nekkee di lim da ngay juum mais amna ño xamantene xamante ma mënuma ñaka ñàkk lim ku mel tay ji euh, euh, man ma coordinatrice bi Anta Ngom Ami Diagne présidente secrétaire général yaay mbay Ndiaye ndag na koy jong mo ci top ci mo top, mo mooy deuxième secrétaire général Delphine Diop du trésorière bi ah koddu mu ndaw topp ci bu nu waxee nag ñi nga xamante ñoo yor organisation bi ma ci cité sama sama sama sama sœur sama xarit Marème saw macha allah ah tey jii ku mel ne ami ami Ndoye ah ñooñu nga xamante ne si tey jii dañuy ŋànk liggéey bi te nu mus a découragé macha allah keneen ak keneen ñoo xamante nekk si biir boo xasee commencé lim rek boo moytu da ngay juum vraiment ñoo ñëpp maa ngi leen di gërëm mais particulièrement di gërëm sunu format sunu formateur bi ndax xale yi moom nit ki mën nga ko tere lépp ba mu des nettali ak xool vraiment da ngay xool heure félicité mais vraiment fa formateur bu mel nii am ndax lay jàngal envie ils ko jàngal ak ak ak ak a ci les ils ils pas facile mi ngi ils téléphones yi mais ils

ndax monsieur le maire am na loo xamante ne waxoon nañu ko nenu incha allah seen école bi naa ci jàpp ba mu bari doole dinaa fexe ba dimbali leen ba wax na ko ko wax na ko Badara Cissé ma koy defaat appel ne ko lu leen la monsieur le waxoon ak ak ak euh, euh, premier adjointe euh, Ndoumbé Diène ñoo ngi toog di leen xaar ñu ne ubbi na suñu école démarré nañu ñoo ngi liggéey ñoo ngi wut suñuy contact ñoo ngi wut suñuy partenaire mais danoo bëgg commune de Bambilor def ci loxoom ba mu saf sàpp ba ñu ne def na ci loxoom de encore de féliciter encore mon ami mon frère Papa ndjay Papa ndjay machallah borom bax la heure buñu défaré ba paré même bu dee même bu fi dé jënd tay ji valeur 20000 dina ñew jënd si té lool lepp manam dompet sax ci xeex la bok loolu daf ñuy won man yi ngeen di def intéressé na ma kon Papa ndjay ñong lay wax chapeau ba vraiment Papa ndjay bu mairie ñong lay wax chapeau ba kontaan nañ sa taxaway yaa ngi ñuy yaa ngi ñuy lijjanti fépp fu nu nekk nekk nga fa ñëw fekk suñu fa kon ñoo ngi lay wax chapeau ba di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp ajaratu Kiné Jóob a ngi nii toog macha allah ah, bu ma limee damay jum waaye nag di gërëm suñu monitrice bële eh, eh, Sabel mi nga xamante ne moo gélé xale ci pâtisserie te xale yi ku mu jàngal bu la jàngalee tey bu subaa nga dem liggéey ko sa ko dem jaayi ko ma bëgg nag yeneen xale yi nga xamante ne inscrit inscrit la goo leen ngeen ñeu inscrire ci école bi ta xamne ne école bii macha allah école la bo xamantene ndariñ kessa la bo paré diplôme professionnel la lay jox école bi c'est officialisé par l'état donc bu kenn ragal né suma ñëw bu ma du ma am diplôme boo amé da ngay am da ngay am diplôme ta bu la paré da lay financer na dem nga ubbi nga liggéey ma bëgg nak ñëpp ñu waa nag di gëreum mareetu mareetu ma ngi lay gëreum ma ngi lay gërëm l'infatigable macha allah da nga nek sama ginnaw motax tax xale daal ngi leen di féliciter encore une fois incha allah bu yàlla dimbalee ñu lépp lu ñuy defati nii ngeen ñëwee ñu former leen ñu dañ leen di si dafa am suivi ñu doon la finance ñu la euh, formé ba pare bàyyi la dañu fexe nga am projet fexe nga am xaalis fexe nga liggéey di jariñ sa bopp di dimbali sa yaay merci. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di sant yàlla bu baax nag di sant sama ñaari waajur di sant sama kilifa ñu ma mën a bàyyi tey ba ma ñëw ba bokk ci formation bi. di sant ñëpp nag maa ngi tudd Ami Diagne di présidente euh, ci mouvement Bambilor Debout ah di kontaan lool nag ci formation bi ndax euh, kaay ma kaay ma financé la te xamoon noo koy doxalee wala kaay yor sa mouvement te xamoon noo koy doxalee bu nit ñëwee di la ci may xam-xam da ngay sant yàlla te ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di gërëm it Anta ndax euh, ëllëg bu. lëg bu lekk gu gërëm bu lekkee cooy na bu lekkee alom na ko gërëme cooy te dañ koy gërëme antax ndax nag grâce a à elle ndax nag moo ñu dooleel moo ñu may fit ñu nit parce que nag daf ñoo jiital ba pare te fakk saluñu gis nga ñun ñii ci bureau bi lu ñu neex la ñuy def lu ñu neex la ñuy wax suñu neexee ñu ne ko lii la ñuy def te loolu la ñuy def mu bàyyi ñu ci nag ñu ànd ci nag di liggéey ci ci loolu bu ko neexoon nag mu ne maa jiite maay dogal lu ma neex ngeen di def te loolu def ko daf ñoo bàyyi ñuy doxal nu mu ñu neexee ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla nag ci kaw ci kanam rek la jëm man toujours sama benn benn wax bi laay wax ku ko nar a faxasal di nga faxasalu ndax nag anta ni mu àndal dañoo dëgëraa ah. te li mu àndal dafa dëgër ku ko nara a faxasal yaay faxasalu nañ leen jéem a ànd ak moom waaw ñu jéem ànd ak moom.

ndax no bari wax ngay wax ñu nek fi eh, ku ne ku nek ku mais il est attentif daf ñuy daf ñuy daf ñuy dafa tey ba xam li bëgg wax mu ñun bu bu bu dul mu corriger ñu bu dul bu mu corriger ñu yaatuna na vraiment ñu ko ñaanal yalla nak bi yalla na continuer ak jam di ñaanal tamit di ñaan di ñaanal di parce que l'île nak ah, formation la xëñ cinq jours la waye bu lu mak la ndax li ngeen jang tay mënoon ngeen a toog ay at du ngeen ko te du ngeen ko jang ñu jangal leen ko ci 5 jours mu duggu kon sant leen yalla bu baax geureum anta nak bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waaw may geureum nak suñu équipe bi yépp di geureum di geureum képp ku bok ci mouvement bi ma ngi lay geureum bu geureum bo ne commencement waye amul fin Dama kontaan trop nak di wax anta ci kaw ci kanam rek waaw li nak mom li ku mu neexul nga ci bokul Maga bëgg a bokk sa fi dina am yeneen formation yu ñu ci tegu mais surtout des formations complémentaires parce que bëgguñu tamit ñëwaat fii di def yeneen formation entrepreneuriat ba entrepreneuriat di entrepreneur di entrepreneur n'est-ce pas donc di baalu ak ñëpp di remercier ñëpp di di di di di profiter rek di joxe quelques attestations un peu sur euh, l'histoire de la création du centre voilà les objectifs ou bien les missions du programme Migration pour le développement euh, yaakaar ce sont mes collègues ont fi une ouverture ba jot nañu expliquer un peu mission centre Et je vous sa si kaddu mama on a compris que Nous euh, na nous fi euh, résumer un peu centre bi lan pour lutter contre la migration clandestine mais nous lutter contre la migration clandestine sans pour autant proposer des solutions à cette migration-là. Et entre autres solutions, la formation euh, fait partie de ces solutions. La sensibilisation fait partie de ces solutions. Mais également, l'orientation fait partie de ces solutions. Donc, entre autres, des missions que le centre il est déroulé depuis plus de cinq ans parce que centre bi euh, nous depuis janvier 2018 le centre bi oubi donc euh, à l'origine c'était des sensibilisations tout court après c'est allé euh, crescendo on a amélioré l'offre de services en fonction de la demande et des besoins de nos cibles et parmi les cibles il y a les migrants de retour mais également il y a la population locale et quand on parle de population locale on inclut tout le monde euh, euh, parmi nos cibles parce que parmi les populations locales nous avons des xam ne dañu bëgg a tukki ñu ngi fi donc ce qui fait que sommes suñu cible une limite d'âge par contre dans d'autres secteurs ou bien dans d'autres structures euh, plus proches de nous par exemple l'ANPEJ on accompagne les jeunes au Sénégal nous avons jeunes, jeune ça se limite à 35 ans ça, c'est institutionnellement. Ça se limite à 35 ans. Maintenant, le centre a une limite d'âge. Parce qu'un migrant de retour sous Nibissier, eh, facilement, a dépassé 40 ans. Et aujourd'hui, on sait que la plupart des structures d'accompagnement, même étatiques, pour les femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Donc pourquoi la, GIZ, euh, dans un de ces programmes, il y a une limite d'âge On n'a pas de limite d'âge. Donc, c'est ce que Et pour cela, pour vous dire que mënuñu wax nit ki bul tukki te fekk expliqué woo ko euh, lan mooy les risques euh, lan mooy tamit opportunité moom mi bëgg a tukki lan la nar a am donc ce qui fait que euh, la formation le renforcement de capacité olof di ko daan tàggat dafa baax pour nit ki am compétence bu koy mën a permettre su demee mu mën a être à mesure de pouvoir compétir et ci loolu comme témoignage ñun centre ba jot nañu accompagner ay nit yoo xam ne ne jot nañu dem bitim réew pour liggéey et ce pas des gens qui ont des masters ni des doctorats dans des filières classiques. Ce n'est pas ça. C'est des gens qui ont des métiers. Métier, moi, euh, Je prends un exemple terre à terre. On a accompagné des bouchers. Mais madame, boucher, nous avons dañ leen accompagner euh, Canada on a accompagné des menuisiers gars yi di raboter tey Canada tey ce donc dem a do ko ne métier boucher et pourtant c'est un métier. Donc on a demal métiers métier menuisier et pourtant c'est un métier. et c'est des métiers qui permettent à quelqu'un d'avoir la chance de travailler que ce soit ici comme à l'international. on a vu gis nañu suñu système éducatif bi c'est trop général nit dina jang université bam master wala doctorat il ne sait rien faire ñu fi xam nañ ko il sait rien faire parce qu'il n'a pas de formation professionnelle, il n'a pas de formation qualifiante. Donc nous, les formations qu'on fait, c'est des formations qualifiantes, certifiantes, qui te permettent d'avoir un métier. cas du Yag, mais c'est des formations pratiques euh, peut-être que a du formation mais entrepreneuriat c'est une formation soft qui te permet de pouvoir développer ce qui sommeille en toi pour que à l'avenir pouvoir développer ou bien euh, percer un secteur pour que mun exploiter donc ci loolu la ñuy yëngu donc ñun nag euh, centre ba dañuy structure on n'a pas euh, des moyens illimités il faut que les gens le comprennent on n'a pas de moyens illimités parce que des projets des programmes leur naissance ou bien leur création ont une durée de vie et ont un budget bien déterminé et budget bu nekk dafa am lu nous ñu voté ko mettre en place on a des budgets de renforcement de sensibilisation mais également d'information ay jamonoom ci budget appui matériel appui matériel la plupart c'est des migrants de retour qui ont bénéficié, bénéficier parce que c'est eux qui remplissent certains critères qui permet euh, de pouvoir capter ces fonds là n'est-ce pas mais euh, vous autres qui n'êtes pas migrants de retour ou bien qui êtes population locale euh, n'ayant pas cette chance de capter ces, ces, fonds, ou bien ces, ces, financements, ou bien ces subventions, ne vous dites pas que, ah, man mom, accompagner les à un financement, mon appui matériel. structure qui est a c'est que les organes c'est muy te tamit organe boo dafa am luy ligne directrice la plupart des structures étrangères ne donnent pas de l'argent parce que c'est au Sénégal que nous ni peut-être agence mu mën financement mais dans les pays nous devons développer yu financement c'est des institutions financières qui ont été gérées pour euh, pour éviter qu'il y ait des détournements d'objectifs, nest ce pas donc nous avons des prérogatives amuñu prérogative et même si nous ne mënuñu ko et même nous ko amoon tamit il faut que nous gardions les structures financières. donc euh, pour vous dire que euh, bëgg on connaît le besoin mais n'ayant pas les moyens et étant limité on fait avec ce qu'on a Moi, je suis souvent dans les structures structure de l'État comme l'ANPEJ et aujourd'hui nous xam nañu c'est la porte d'entrée mooy euh, emploi entrepreneurial, du ñu Sénégal service et si le Sénégal service il y a des structures financières de l'État qui fa comme la DER Il que nous am un financement un appui et pour les femmes c'est illimité encore une fois donc euh, nous suñu cœur de métier le euh, renforcement de capacité et je pense que c'est le plus important n'est pas parce que nous loolu la c'est le plus important mais tey à a des milliards mon capacité mon compétence lu de permettre fructifier ko soit milliards yi day stagner wala mu mais lui, est. est-ce que vous comprenez et je pense que euh, loolu est pertinence choix thématique bu la pour formation bi entrepreneuriat L'entrepreneuriat entrepreneuriat permettre suñuy qu'il parce que en de qui l'ont compris les pays développés aujourd'hui comme les États-Unis ou bien les autres pays et qui ont un fort potentiel économique souvent c'est le privé ou bien c'est l'entrepreneuriat qui fait développer ces pays-là donc euh, aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, vous participez au même titre que l'État ou bien même plus au développement de ce pays. Parce qu'aucun État au monde n'a la prétention ou bien ne peut régler le problème du chômage. L'État met les moyens et les conditions pour pouvoir faciliter euh, les gens à créer des richesses à travers l'entrepreneuriat, mais également faciliter ceux-là qui peuvent prendre des gens en créant des entreprises pour nous euh, participer aussi, résorber un peu le problème du chômage. Donc pour vous dire que vous avez choisi une thématique gënul Yom, au contraire c'est la thématique la plus pertinente parce que l'Olu day sokkal réew donc euh, ci l'Olu, nous on est en phase avec euh, nous mu encore les euh, femme active de Bambilor je pense donc ci bëgg-bëggam ak vision, nous savons, la formation yi gën et bëri te peut-être plus gën mais lépp plus mënta gis budget la planification donc fu mu toll nii nañu jàppangum ni formation bi lañ leen indil euh, peut-être ëllëg moyen su amee euh, euh, tamit tamit part yeneen partenaire su ñëwee greffé ñu gën mëna yaatal affaire yi ba lu ngeen fi lu ngeen fi jot a ngeen gën ko yok wala ngeen gën ko compléter parce que formation entrepreneuriale dafa bax mais tamit entreprendre pour entreprendre dans un secteur et je pense que vous y pensez su nekkulee tamit yéen ngi ci déjà donc euh, di remercier cabinet bi parce que cabinet bi depuis cabinet yoo xam dañ ci dañuy yag liggéey ak mom depuis deux ans euh, surtout moy jiitu cabinet bi muy monsieur Mbaye muy nit ku généreux peut-être amulen chance mu ñëw fi parce que dafa am ñëw na fi ah voilà donc vous êtes chanceux parce que am il faut amener, ne jotu fa jaar quelqu'un de généreux té soo leen gisee monsieur Mbaye rek danaka xam ngeen qualité enseignement euh, équipe am bu mu yor ñun nak ñun duñu ñu euh, du évaluer euh, suñu cabinet on laisse le soin de l'évaluation à vous autres bénéficiaires té yeen soo évaluer ni cabinet bi wala formateur buñ fi yebal def na liggéeyam comme nous ko jaaralee yoon té yeen tamit gis ngeen ci seen bop donc cela veut dire que nous on est satisfait amul beneen luñ ci wutaat donc di ci profiter wol tamit di ko remercier monsieur Niass di patience parce que ku amul en du toog heure bi contrat ak mom jeex bu yàgg mënoon na bi bàyyi fi fii te loolu la waroon def sa mënoon na ñibbi bàyyi leen fii contrat ak mom pare nañ ko depuis 16 h donc c'est parce que dafa bëgg lu mu commencé mu jekkali ko vraiment ci nu mu gën rafété rafetee te ci loolu tamit euh, ñu ko ci remercier di len naan vraiment c'est à travers lui cabinet bi ils sont disponibles à toujours vous accompagner yaakaar naa ne ça c'est pas euh, une demande mais je sais qu'ils l'ont fait am un groupe WhatsApp boo xamante les lépp là, leen soxla mun ngeen gis euh, moom wala cabinet bi su amulee jot na ay collègues am yu nekk ci cabinet pour nous gën accompagner ngeen gën a répondre ou bien résoudre certaines problématiques yu ngeen am ci seen wàllum euh, nous tudd encore euh, formation bi ngeen fi jot def donc attestation yi nag lu baax la c'est très important mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est le savoir attestation yi day euh, appuyer compléter ou maanaam euh, am apporter un plus ci ëllëg su financement wala lan ngeen di wut day ah ñii ñu ngeen bëgg accompagner ñu ci secteur bi jot des formations. formation ils ont la capacité de pouvoir Euh, prendre en charge lu ngeen di confier loolu mooy njëriñ attestation bi di leen di ñaax encore qui attestation yi de telle sorte que euh, ngeen mën ko utiliser à bon escient. comment disais à bon escient il y a des structures aujourd'hui de financement que ce soit étatique ou non étatique qui sont là ñu ngi jëm année euh, électorale il ne faut pas hésiter c'est un dossier de candidature qui demande appui de joindre l'attestation qui prouve que ah ni c'est pas de l'argent jeté ou bien c'est pas un accompagnement jeté par la fenêtre et ñooy recevoir formation récipiendaire moy wa femme active de Bambilor ñu ñi nga xamantene ñom ñoy wa waa GIZ di wax au nom de cabinet bi nga xam ne fi yebal moy cabinet IADR di wax né tout d'abord symbiose bi nga xam ne moom moo am digënté ñi di wa GIZ ak femme bi di fa ak femme yi di wa femme active de Bambilor nek na wa nga xamante ñu koy rafet bu baax parce que def nañ fi formation yoo nga xamante ne am na njëriñ sur tous les plans nekk nañ jamono joo nga xamante ne entrepreneuriat mun nañ ne dafa xew te dootul xew yi te bari na loo nga xamante ne boo si dee dugg te amoo xam-xam boo xam ne moo nga si mën a dimbale da ngay am ay gàllankoor yàlla dogal nag ñu daje fekk ñoo nga xamante ne ñoom it wax dëgg fa yàlla moom mën naa ne si gàttal kenn du leen jam naa ni ndax woo nañu leen si dara te wuyu nañu à 100 dañuy wax naan bu fecc gone riir neexee c'est parce que ndey ja moo jàpp sa mbagg ya ñun bu ñu defee cours tey mu neex ñëpp naan Moussa Niass Moussa Niass ginnaaw yàlla sa parce que ñoom ñoo toog dalal ñu fas yéene ñoo déglu comporté wu am ay élèves modèles par conséquent. ñu ku nekk sa tur ak sa sant euh, di nuyu ñu fi teew ñëpp aussi di leen wax aussi kontaan nañ trop ci formation bi nga xam ne jot nañ ko tey aussi. Euh, indil nañu njariñ apporter nañu aussi beaucoup de choses ñu fekk tamit aussi ay mère, yo xamné ne dañoo dañoo njaxlaf aussi pour exemple ñu jël taa anta parce que moom mo ñu mo ñu ñemeloo dal comprendre nga mën na am ñu am dara suñu mais ñoom ñoo ko réveillé aussi tu vois ambiance nous yep, ñun ku nekk euh, fii tey ku fi jógee rek di tu vois parce que c'est une dynamique monsieur Niass aussi il a été trop pédagogue on peut dire on a trop compris les choses donc c'est l'essentiel en cinq jours on a appris ce qu'on a ce qu'on peut même pas apprendre durant trois ans tu vois il a expliqué est-ce que vous avez compris Papa yep, ba aussi nous ñu jël pause

man da aw ma xolu ndax ñoom ñu defal ma lii ñu defal xale yi ñun ñi nga xamante ne si macha allah boobu ba léegi ci loolu la ñuy dox ci social ak ci développement ñoom ñu ñëw ak beneen facette boo xamante ne sii dañuy jàngal nit ki euh, xam-xam jox la nga lekk jox la nga naan boo pare ñu jox la paas nga ñibbi ma ne ñooñu il faut que ñu remercier leen. vraiment seen taxawaay ci ci ci ci dëkk bi rafet na seen taxawaay ci Sénégal rafet na ñii ku xam ku leen ne dañuy xeex.

tudde ko école Mariama Ndoy di fi jàngal xalé yi euh, euh, pâtisserie agroalimentaire restauration sérigraphie infographie informatique donc lépp dañ koy lépp dañ koy école bi. mu doon école dañuy dañuy euh, que borom ñu ñu ñu parce que liñ fi ay jeune fi yor ci ay jeune bari na jeunes yoo xamante ne kenn ku si nekk jàng nga ba am say sa jël ko tëdd si amoo emploi amoo dara kon ñooñu ñoo ngi leen di lancer un appel di wax ne waa GIZ vraiment kontaan nañ si yéen di leen wax ni lii ngeen ñu defal neex na rëy na ci ñun mais ngeen ñuy dolli di ñu dolli di ñu dolli di ñu dolli macha allah di gërëm Moussa Niass di gërëm tam collaborateurs yi nga xamante ne si ñoo ñëw indi diplôme yi vraiment yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla yokku daal. pas-pas merci je vous remercie merci